rare la te góor ñi ñoo ngi deuxième division lu rare la équipe nekk deuxième division dem final du Sénégal ñu lancé appel population du space yëpp ñu ñëw euh, jàppale ñu jàppale nekk nekk seen ginnaaw xale yi ñu jël champion jël coupe Sénégal bi euh, message boobu ci ñu lancé ko ñu lancé population bi ñu autorité yëpp ñu ñëw jàppale leen le 4 novembre ñu ñëw jël coupe Sénégal bi